moom itam euh, euh, ci citoyen la bokk ci réew mi mooy Pakoti euh, Pakoti ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bi tey. waaw ñu bëggoon rek xam yow itam lan mooy sa xalaat ci mbir yi. waaw xanaa di di ko naqarlu di ko tiislu ba pare di ko ñaawlu ci biñ nekkee fii ci Sénégal en 2013 ba 2014 un grand responsable kilifa diine. di nitu communication di oustaz di borom xam-xam di chercheur di islamologue di religieux vraiment Macky Sall mi nga xamante ni population yi dañ ko dëddu ndax promesse yi nga xam ni teniru ko jël Sidy Lamine Niass ni da ko dugal ci kaso bi Sid Lamine Niass li mu wax moom la àdduna bi yépp di wax Macky Sall dafa ne am na juróom-ñetti milliards ba mu tàmbali liggéey léegi boo xaymaa la mu war a am matul milliard Sid Lamine di wax pour Macky Sall leeral milliards yooyu fan la ko jëlee vraiment loolu jarul tëj beneen bi ñu ni ñun ak Sid Lamine Niass ak këru diine kër chrétien Sid la Niass moo gën a gëm yoon ci yàlla Insa moo gën a jàng alquran moo gën a xam li yàlla wax ci luy ponk ngëm ponk ngëm mooy bokk na ci ponk yi da ngay gëm diine yépp da ngay gëm yonent yépp na ahadim min rusuli loolu la yàlla wax te Sid Lamine Niass ci yoonu yàlla la nekk Macky Sall dafa bugg comme ne opposition yi comme ne peuple bi comme ne ñi de te mar comme ne ñi découragé wal fajiri rek lañ am muy fenêtre bo xamni ni mën nañ faa waxee seen soxla Macky Sall dafa bugg bayoné wal fajiri bayoné Sidy Lamine Niass su ko defee ñëpp dañuy tàccu Macky Sall di def comme Moustapha Cissé Lo ñëpp dañuy tàccu Macky Sall di def comme ñoom Abdoulatif Coulibaly ñëpp dañuy tàccu Macky Sall comme ni ko Madiambal Diagne di defee ci Sid Lamine Niass namul dara xiiful marul raflewul bu soxla woon ay milliards yaakaar naa kon du taxaw position bi ci kaw Ablaye Wade bi jamono yi Ablaye nekk ci nguur bi kon nag li ñuy wax mooy dañuy bind te dañuy critiquer Macky Sall dañ koy wax ni la ngay def te tegoo ko ci yoon bu fekkee dafay ku ko wax ni li ngay def normalul rek da koy tëj kon dina tëj Sénégal yépp donc maa ngi koy naqarlu man rappeur yëpp ñu ngi koy naqarlu artistes yëpp ñu ngi koy naqarlu politiciens yëpp ñu ngi koy naqarlu Sidy Lamine Niass dafa war a dellu ci këram continuer liggéeyam muy sentinelle Sidy Lamine Niass bokkul ak journaliste wala organe de presse yi nga xamante ni dañuy topp ci ginnaaw Macky sàll di ko siiweel ay dàllam donc Macky Sall nag na bal li muy def bu tëjoon Sidy Lamine Niass tëj waa Sénégal yëpp du tax ni réew mi doxul njàng mi baaxul université doxul ambulants yi doxul nit ñi xiif nañ ndool nañ xiif nañ mar nañ dara doxul dëkk bi dafa Macky ñun nag ay woykat lañ te dinañ bind ay woy danañ critiquer Sall danañ ko sànni ay xeer danañ ko wax ni la ngay def tegul ci yoon na libéré Sidi Lamine Niass mu ñibbi na libéré Karim Wade mu ñibbi na libéré Hissène Abré mu ñibbi na libéré Aïda Diong mu ñibbi na libéré bépp détenu boo xamante ni politique moo la fa andi parce que lii Sidi ko def du mbiri justice mbiri politique la woo nañ ko ba sonn Macky Sall nee na woo Sidi Lamine Niass mu ni ko maa la mag maa la ëpp xam-xam boo soxlaa ñëwal maram fay yónnee nag Sidi Lamine Niass mu ni ko ñëwuma léegi lenn lañ mën bundu xatal ko créer ko ay problème andil ko ay ay fay yu mu xamni waru ko fay tëj ko nak mom mo def mais nañ xamni il y a plus de millions Sidi Lamine Niass ci Sénégal bu rayoon Sidi Lamine Niass sax des millions de Sidi Lamine Niass dinañ jug taxaw ne ko Macky Sall li ngay def tegoo ko ci yoon dëkk bi xiif nañ l'urgence est ailleurs xam nga génne woon naa way mané il déteste les critiques par un A ou un B il s'offusque et il insulte il est en panne d'inspiration en manque de relations, il fait de la diversion pour détourner l'attention. Donc, il faut que tout le monde se taise, nit ñi duñu noppi liberté d'expression le article 80, vingt amatu fi yoon CREI parce que traque des biens mal acquis bi bi bi bi de la ñett laal dafa laal Macky Sall bu fekkee doomu doomu Ablaye Wade am na tuuti xaalis ñu tëj ko Macky Sall dafa war de wax fan la jëlee xaalisam leeralal ko population yi nit ñi mën ko mais si la manière ñu ngi koy man ku ko sopp laa ku ko naw laa ku ko respecté laa te incha allahu rabbi dana dellu ci këram dana continuer liggéeyam na mu ko doon defee dana ko ko defee te ñi nga xam ñoo nekk di di défendre Macky Sall mu ñoom Cissé nga xam ni euh, ni ko Fou Malade di waxee c'est des singes singes ambulants ay golo yu taxawaalu lañ dañu war a tëj seen làmmiñ parce que amuñu lu ñu wax maa maa ngi gërëm ñëpp di wax ci au nom de tous mes amis au nom de tous les rappeurs yi nga xam ni dañu respecter liberté d'expression dañuy bind ay textes dañuy bind ay textes yu engagé Macky Sall na préparé wu tous les rappeurs dinañ ko critiquer dinañ ko bindal ay woy dinañ ko bombarder parce que la muy def bokkul ak la mu dige woon wax yëpp loolu la maa ngi baalu nag ci wax ji ni mu jógee di baalu kilifa diine yi église bi bu leen Macky Sall ak ñi mu àndal dugal ci erreur église bi suñuy mbokk ngeen chrétiens yi suñuy xarit lañ catholique yi suñuy xarit lañ si Lamine Niass sànniwul benn xeer fenn jàmm ko tax a jóg salaam moo ko tax a jóg. Sidi Lamine dafa gëm Jésus dafa gëm Isa dafa gëm Moussa dafa gëm Youssoufa dafa gëm Seydina Mohamed loolu mënul am ci Sénégal mbiri cré mbir bu bu ñu détourné débat bi yóbbu ko feneen Macky Sall lañ wax ni koppar ya mu am ne moo ko moom muy huit milliards na leeral askan wi fan la ko jëlee débat bi loolu la Sidiki Kaba mi doon défendre góor jigéen ñi dañu def ko ministre de la République nañ ko gën a leeral ñii ñu jàpp di leen bundu xatal di leen sonal te defuñu dara nañ ko leeral dund gu metti gi dëkk bu makki bi nit ñu sonn ñi xiif mar rafle Macky Sall impopularité bi mu am kenn mënu wax nan la toll dëkk bi yëpp ko du dëddu mu jël justice bi def ko arme politique pour déstabiliser ay adversaire wala muy museler ñi nga xam ne ñooy taxaw ne ko li ngay def tegoo ko ci yoon ñu ngi koy naqarlu di ko tiislu di ñaanal Sidi Lamine Niass yal na ko yàlla yokk doole yal na ko yàlla yokk wér yal na ko yàlla gën a yokk xel ak dal mu gérer business bi gën a dem ci këram mel na mu na mu meloon ngeen baal ma àq ci wax ji dama sama xol moo fees loolu moo tax may waxee nii Mamadou bi tey. jërëjëf yoon la nit ku ci nekk.